ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission euh, Sophia toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures tey ji seen émission euh, Sophia toute la ville en parle fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni euh, handicapé diplômé yi ñu ngi koy faral di jànkonteel file ci Sénégal am projet yu bari yoo xamante ni état wu Sénégal tegoon na ko pour jàppale leen lu ni mel lu ci bari defu ko ba tax nag ñu ne mel dañu fépp ñu fas yéene waxtaanee kon seeni jafe-jafe euh, moo waral tey jii ñu dalal Serigne euh, Gaye nekk euh, président wu handicapé diplômé du Sénégal ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. ñu lay tey soxna Ndeye Comba di am mbégte ak contentement bokk ak yow plateau bi. Mhm. di wax ne association bi ñu ngi ko créé en Euh, bi ñu koy créé c'était pour lutter contre la mendicité boobu sax euh, presque ñu bëri ci ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàng parce que dañu euh, bi mënul def dara lu dul a def hmm. donc seen jàng dañ ko mel noonu parfois aussi pour biir jàng dañuy jàng ñu arrêté mais pourquoi association boo xamante ni day lutter contre la mendicité ak aussi di fexe ba xamante ni way laago bi mën a jàng pour diplômé ba pare aussi yor boppam yor famem aussi donc loolu moo taxoon ko. parce que parce que déjà waaw ban at at ngeen créé seen seen kuréel gi. ñu ko créé le 28 novembre 2016 euh, ñu ngi ko créé le 28 novembre donc au début bi ngeen koy créé c'était pour jàppale euh, handicapé yi wala handicapé yi nga xamante ni ñoom dañu jàng ba pare yor seen lijjaasa. non c'était boobu euh, dañ ko créé wala bi ñu koy créé dañ ko defoon pour lutter contre la mendicité. début bi c'était pour lutter contre la mendicité. voilà donc euh, ñuy dem nag euh, ñuy dem di dem di dem ba gis ne. handicapé yi ñu ngi jàng mais ñu ngi diplômé mais buñ diplômé duñ am liggéey. ñu tënku léegi ci benn ci benn association boobu dañu naan association des handicapés diplômés du Sénégal. parce que parce que dañ ci gis ne handicapé yi ñu ngi jàng mais buñ jàngee pare duñ am liggéey. d'accord début bi c'était pour xeexal xeex la mendicité wala sax handicapé yi nga xamante ni ngi yalwaan mais da ngeen dem ba ci biir ngeen changé ko daal di koy accès ci handicapé yi nga xamante ni ñoom euh, tànn nañ dem euh, jàngi mais suñu jàngee ba noppi du ñu mën a am xëy parce que dañ leen a ber ci société bi donc li nga bëgg wax foofu moom mooy peut-être société sénégalaise dafa jàppee handicapé koo xamante ni moom si mbedd mi rek la war a nekk di yalwaan wala et ça ne date pas aujourd'hui état du Sénégal ñoo mësul jox cër euh, waylaago donc loolu moo tax ñun ñu ne pourquoi pas ñun ñoo tax ñun ñun ñi nga xamante ne jàng nañ am nañu diplôme xeexal yi ba ñëw wala suñu doom yi wala suñu jarbaat yi ñëw boo légee bi ñu li nga xam ne ñu dund nañ ko donc loolu moo taxoon ñu gerte ko parce que bu njëkk bu njëkk euh, même pour nga dem école daf doon metti même pour nga jàng ci daara yu mag yi aussi da doon metti parce que yi baaxutoon loolu loolu loolu moo taxoon nag ñu ne pourquoi pas ñun mënuñu taxaw xeexal way dañ ko cëram loolu moo tax actuellement ñu ñu ñu ñu tënku ci di xeex loolu pour loolu mën a am. mais mais déjà bala ñuy ñëw ci seen association euh, ñu laaj la ci wàllum mendicité euh, maanaam naka nga gisee euh, le fait que handicapés lu ci ëpp dañuy nekk ci mbedd mi di yalwaan yow ban gis-gis nga si am déjà. Pourquoi Parce que depuis fort longtemps, la pauvreté a marqué des pays sous-développés comme le Sénégal. ce qui loolu moo waral euh, yalwaan bi loolu moo ko waral parce que am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu amee seen doom dañuy jàpp ne fii ëllëg mënul dara donc yalwaan rek lay mën donc dañ koy jël exposé ko mu dem yalwaan yi donc loolu moo ko waral te état du Sénégal aussi tamit jiwu ci euh, daf ci daf ci daf ci daf ci daf ci daf ci dugal loxoom bu baax a baax a baax daal et ça ne date pas aujourd'hui mm-hmm. mais pour yow loolu lan moo ko indi maanaam société bi moo jàpp ni handicap bi dafa war a dem yalwaani wala sax euh, état bi si boppam moo jàppalewul handicapé yi. waaw société bi mën naa ne société bi ñu ngi jàppale euh, handicapé yi ci li ñu man mooy par exemple tey ñenn ñu ngi jël seen ay doom di leen jàngaloo mhm. mais état bi Sénégal ci boppam moo waroon a def fii ba nga xamante ni way laago bi di yalwaan di Ami et ça ne date pas aujourd'hui au moins sax euh, actuellement euh, Sénégal ñu def ay jéego naam ci waylaago yi nga xam ne xale lañ di jàng donc jàppale ci côté boobu mais bu njëkk njëkk état du état du dafa dafa dafa dafa dafa dafa bàyyi woon dafa génne woon loxoom ci ci waylaago yi donc loolu bokk na ci li nga xamante ni aussi société bi aussi dem nañ ba nga xamante ni ñoom itam bu ñu amee ko yóbbu rek mu leen yalwaani parce que dañu naan ëllëg du du dara mais mais mais mais yow pour yow euh, mm-hmm. état wu Sénégal lan la mën a def pour waylaago yi bañ a des ci yalwaan gi dem di jàngi maanaam euh, état wu Sénégal nan la mën a éradiquer wàllu mendicité fii ci Sénégal rawatina pour les les personnes handicapées. waaw pour éradiquer complètement la mendicité ici au Sénégal. Mhm. Euh, ci way ci ci waylaago yi. état du Sénégal il faut que mu appliquer loi d'orientation sociale bi nga xamante ni voté woon nañ ko depuis deux mille dix il faut que mu signé décret d'application yëpp à la lettre su ko defee rek problème bi day daal di day daal di réglé su boobaa way laa boobu bi bu bu dootuñu ko bàyyi muy yelwaan non seulement duñ ko bàyyi mu yoroon mais danañ ko encadrer danañ ko jàngal te bu jàngee ba pare aussi dina am liggéey. mais lan moo nekk ci biir loi d'orientation sociale. waaw xam nga loi bi li ñu nekk cinquante articles loi bi li muy wax bari na. Mhm. donc day day encadrer euh, waylaago bi daf koy jàppale. Euh, ba pare bu jàngee ba pare aussi daf koy jot am xëy te daf koy jàppale ci wér gu yaramam daf koy jàppale ci lépp loo xamante ni daf koy soxla maanaam daal mën naa wax ne ci gàttal euh, loi bi bis bu ñu ko appliqué woon rek waylaago dootu sonn ci Sénégal. parce que soo amee sa doom même soo ko soo ko dugalu école euh, euh, loi bi dana ko dana ko former hmm. dana ko former te mu paree dana ko jox financement te bu feebaree dina faju bu bëggee dem dina dem donc loolu loolu loolu buñ ko amee euh, yaakaar na kenn dootu jël sa doom di ko di ko di ko yelwaandoo maanaam ñu ñu respecté li nga xamante ni moom mooy loi d'orientation sociale est-ce que est-ce que loi boobu bi ñu koy voté yéen consulté nañ leen wax leen seen xalaat tamit bi ñu ko voté ba pare est-ce que laaj nañ leen euh, naka la ñu mën a def pour application bi yomb euh, ba personnes handicapées yi mën a gis seen bopp vraiment ci ci société bi. waaw xam nga loi bi euh, handicapé yi ñoo ko xeex ba ñu voté ko. mais bi ñu ko voté ba pare aussi dañ ko jël dugal ko ci ay tiroir naxante ak euh, ak ak handicapé yi ba dem donc moom moo ko su su su la rek de Wade la Wade moom moo signé euh, euh, moo signé loi bi bu ñu ko yóbbu à l'Assemblée nationale ñu voté mais bi mu pare ko dafa daf jël dugal ko ci ay nag comme président Macky moo fi nekk moo tax ñu ñuy ci moom mu fexe ba signal ñu décret d' yëpp à la lettre comme ça su ko defee léegi way laago bi dootu soxla ndimbalu kenn ay demal boppam comme ñëpp d'accord muy loi d'orienta euh, loi d'orientation sociale mais est-ce que yéen lu ni mel yéen a ngi siy xeex ba léegi pour application bi mën a am parce que ba léegi ci ci ci ci loi d'orientation boobu ci ngeen bokk. waaw euh, loolu moo tax ñuy xeex parce que soo gisee ñu ngi wàcc def ay doxu ñaxtu ñu ngi def ay conférence de presse aussi ñu ngi def ay émission aussi ci ci plateau télé yi. Mhm. te ngi def li ñu mën lépp. Euh, président aussi euh, yaakaar naa dégg nañu parce que joxe woon na ay instruction maanaam joxe woon na ay ndigal joxewaat ay ndigal te yemul rek ci joxe ay ndigal même ñun bind nañ ko mu tontu ñu joxe na ndigal pour ñu régler problème bi mais dañu euh, depuis deux mille depuis deux mille vingt ba léegi président ay instruction mais kenn du ko kenn am na lu mu génne woon lépp daal di bokk ci loi d'orientation sociale di carte d'égalité des chances. carte d'égalité des chances moom mooy lan nga expliquer ñu ñu xam carrément. waaw taxe yi euh, euh, benn pàcc la bu bokk ci loi d'orientation sociale. benn pàcc la waaw. Mhm. benn pàcc la ci benn article la ci xam nga euh, loi bi cinquante article la mais benn article la ci mais article boobu am na décret d'application mais appliqué wuñ ko à la lettre parce que dans les normes ci yoon bu ñu ko tegoon ci yoon bépp handicapé bu demandé carte bi da nga ko war a am. et boo ko amee ba pare aussi da koo war a mën a jëriñoo maanaam boo feebaree da nga war a faju gratuitement boo soxlaa dem ak liggéey transport public bi da nga ko war a def euh, comme il le faut mais dañu gis euh, dafa dafa des. maanaam li ma bëgg xam moom mooy euh, audi ki lay déglu actuellement auditeur bi dégguñu ne mm-hmm. carte d'égalité des chances. Mm-hmm. dafa bëgg xam lan mooy carte d'égalité des chances carte boobu su fekkee dañ ko jox par exemple handicapé bi. handicapés d'une manière générale ki am mm-hmm. handicapé physique ainsi de suite su fekkee mm-hmm. carte d'égalité des chances boobu jox nañ ko handicapé bi lan la mm-hmm. koy jëriñ lan la koy permetre comme ça nga expliquer ñu xam waaw pourtant loolu loolu laa lay leeral mën la carte bi tey way bi bu ko joree waaw bu dee ki nga xamante ni day jàng ay inscription mag yu mel noonu yëpp dafa ko dañ ko koy teggil ba pare bu feebaree dafa war a mën a faju gratuitement gratuitement transport aussi public bi dem ak dëkk bi daf ko daf war a daf ko war a wu gratuitement te du fay dara ak yeneen ak yeneen. maanaam bu yoree euh, carte bi. suy jàng du fay dara. buy jàng buy jàng tey ay institution yëpp ñu ne bi muy dugg transport public bi waru ko fay. waru ko fay bu demee hôpital bu bu feebaree dem hôpital aussi dafa war a faju gratuitement carte bi la boo koy ñoo koy servir pour ñu mën a faju gratuitement. d'accord loolu lépp ci carte bi la nekk maanaam dafay am gratuité ci service yu baree bare dañuy voilà euh, voilà donc loolu moom mooy li nga xamante si nii moom mooy moo nekk ci carte bi mais loolu appliqué wuñ ko sax à la lettre que président joxe na ay ndigal ba sonn mais ba léegi kenn jëfewu ko dafa yor carte bi dem ci dem ci hôpitaux yi mais dañ naan la non boo fayul doo faju léegi léegi léegi carte boobu ñan ñan ñoo ko am ak ñan ñoo ko amul parce nag am na mais am na ñu amul parce que demande ko tax nga am ko am na ñu bëri demande nañ carte bi mais amaguñ ko. mais booy def demande carte bi fan ngay dem. ça dépend ci ci ci région bi nga nekk foofu bu ne foofu service social bu nekk rek mën nga ko fa déposé. maanaam service social bu nekk. waaw comme ça par exemple ci dëkk ci dëkk ci dëkk ci dëkk ci dëkk Thiès. waaw service social bu Thiès nga ko déposé foofu. waaw. voilà donc noonu la demee kenn ku nekk rek service social bi ñu gën a jege nga ko déposé foofu. fi la gën a jege mën nga dem déposer pour am carte bi. mën nga dem demande foofu carte léegi su fekkee def nga demande carte bi yan condition ngay am pour ñu jox la ko. waaw dinañ la laaj euh, benn benn benn benn booy remplir ak sa photocopie ak ak ak et cetera donc pour nga pour nga mën a am carte bi. d'accord léegi carte bi am na ñu am am na ñu amul. ñaata ñaata ñaata nit ñoo am ñaata personnes handicapées. en tout cas ñi ko am ñi Sénégal yëpp motul soixante mille euh, motul soixante mille personnes. motul ko am yëpp pour le léegi euh, euh, ñi ko am motul soixante mille personnes est-ce que ñi ko am actuellement ñi ngi bénéficier wu ci privilège yooyu nga wax sànq. maanaam boo feebaree euh, pratiquement euh, da ngay faju gratuitement ci yi euh, transport public yi boo duggee doo fay ainsi de suite jàng bi tamit dañ lay wàññil est-ce que avantage yooyu ñi jot a yor carte bi ñu si siy bénéficier wu waaw wala déet waaw am na ci ñoo xam ne ñu si bénéficié eh, wu mooy transport public bi am na ñoo xam ni am nañu jot nañ si am ay carte bi mooy Dakar Dem Dikk. mën hmm. a dem ak dikk mais tam aussi mais su faju ci ak affaire yooyu moom euh, euh, amaguñ ko d'accord nga ne ñi nga xamante ni yor nañ carte bi ñoom si li ñuy bénéficier wu mooy justement euh, ci transport public bi kese mhm. kese pour le moment pour le moment te bu ñu am ñoo xam ne am nañ ko te amuñu carte bi mais am ne am nañ ko am carte bi mais du ñëpp nag ñoo ko am am carte bi. léegi état Sénégal ban explication la joxe ba tax euh, affaire bi mënul euh, mënuñ ko def loo xamante ni yéen da ngeen koy yëg carrément appliquer carte d'égalité des chances. waaw état problème boobu la ñu am parce que amuñu benn explication boo xamante ni explication la bu leer bu ñu bu mën a teg suñu loxo donc loolu moo tax ñu président Macky Sall ñu jël dossier pour fexe na bu fekkee am nañ ay sécurité dans ce pays ñu en faisons partie et et ñëpp xam nañ ne aussi waylaago bi à part ay waajuram président rek la yaakaar président rek moo ko mën a jàppale. léegi état wu Sénégal ban explication euh, la joxe euh, le fait que mënuñ appliquer li nga xamante ni mooy carte d'égalité des chances ban explication la joxe. waaw actuellement ñun amaguñu benn explication bu leer parce que euh, président joxe na instruction ba sonn kenn mënu koo jëfee. te autorités yi nga xamante ni seet nañ leen waxuñu ñu dara lu leer donc loolu moo tax ñu bëgg président de république mu jël dossier bi en main jël ko en main parce na mu jël ko en main su ko defee léegi euh, way bi mën a bokk ci ci ci mën a sentir ci réew mi. yéen da ngeen bëgg njiitu réewu Sénégal jël dossier bi en main. en main parce que booba léegi ñu ngi joxe ay instruction mais booba léegi depuis deux mille deux mille ba léegi ñu ngi joxe ay instruction ñu ngi joxe ay ndigal mais kenn joxewut ay te dañoo jàpp ko war a jëfee parce que nag waxu président waaw la sant hmm. mais gis nañ ne autorités yi dañuy su dañuy dañuy waxu président te loolu c'est normal léegi léegi yow euh, beneen ponk bu am solo euh, di wàllum violence faite aux femme gis nga actuellement dafa def actualité euh, ñu koy wax waxtaanee maanaam jigéen ñi nga xam ni euh, ñu ngi leen di teg ay xeetu fitna yu bare bari euh, ñu ngi jalgati seen àq ak yelleefu doom seen àq ak seen yelleef gis nga coowal viol ainsi de suite mais est-ce que les femmes handicapées particulièrement naka la ñuy dundee li nga xamante ni mooy violence faite au femmes est-ce que am ngeen si ay cas yoo xam ne marqué na leen. waaw euh, comme ni ñu ko ni koy waxee euh, jigéen moom seen waru koy toroxal seen waru koy violenté euh, jàpp naa ne ñun handicapé yu jigéen yi yi nga xam ne ñu ngi sëy ñu ngi seen néegu sëy ak ñu sëy bariwul bariwul ci daal man moom awma ci benn cas wax dëgg yàlla association bi ba tey aussi dégguma ñu signalé ci benn cas. si seen association bi ngay nekk te du association bi am na ay góor am na ay jigéen. am na ay góor am na ay jigéen mais wax dëgg yàlla. mësuñ ci am benn cas boo xam ne nii jigéen la boo xam ne ñu ngi koy ñu ngi dund violence ci këram wala ci ci biir néegi sëyam bu mu déclaré application yi nga xam ne tam aussi bari na mais mësu duma gis benn handicapé boo xam ne nii ñu ngi dund loolu hmm. ci famille wala ci biir néegi sëyam d'accord mais yow ban gis-gis nga ci am waaw gis-gis ma ci am mooy euh, ñaar la euh, benn bi mooy euh, nañu nañu defaraat jikko yi nañu defaraat jikko yi ñaareel bi aussi mooy nañu jël ay sanctions yu yu sévères di ko teg ñi nga xam ne dañuy parce que jigéen dañ jigéen euh, ñoo koy sabablu bëri ci léegi parce que li tax ma posé la question bi euh, violence faite aux femmes jigéen ñëpp a koy dund du personne handicapé yi kese wala du femme handicapé yi mais dañuy gis ni souvent euh, sànq yaa ngi koy laal problème mu mendicité bi euh, benn femme handicapé day yor chaise roulantam nekk ci mbedd mi di tàllal loxo mais fa lañ koy fekk daal di koy sàkku violé ko ainsi de suite mu am ay cas yu bari di nga gis presse bi di ko bind wala ñu koy dégg moo tax ñu la ci laaj sa xalaat. waaw xam naa nag euh, man wax dëgg yàlla amaguma ci cas Mm-hmm. wala bokk ma dégg ñu ne am na benn handicapé bu jigéen dañ ko dañ ko violé wala dañ ko violenté mm-hmm. wax dëgg yàlla awma ci cas dégguma ko fenn tam aussi mm-hmm. mais pour yow lan mooy euh, protéger les femmes handicapées ban est-ce que soxlawuñ benn euh, protection bu spéciale waaw xam nga mooy li ma la wax rek gis nga euh, mooy femme handicapée bi état du Sénégal moo ko war a protéger mais état du Sénégal su mu protéger ko il faut que mu fexe ba loi yi nga xamante si nii voté nañ ko ba pare ñu signé ko ay décret d' application bu ñu ko defoon rek dañuy protéger la femme handicapée non seulement la femme handicapée mais dañuy protéger wàllu handicapé yëpp loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy solution bi. boo xam ne état wu Sénégal moo si war a taxaw. moo si war a taxaw te loolu rek moo mën a saafara euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la way laa ko déglu ñu leen koy décret d' application yi bu ko bu ko bu ko bu ci ñëwoon lépp à la lettre rek mun naa wax ne euh, way laago bi au Sénégal buur la fiy nekk dootu soxla ndimbalu kenn. Hmm. yow tamit euh, Serigne Gueye dañ lay laaj sa xalaat si euh, bala ñuy ñëw sax yow si seen problème yéen carrément handicapé diplômé yi dinañ si ñëw mais euh, laaj la sa xalaat ci xale yi nga xamante ni ñi ngi yelwaan ci mbedd mi parfois ñu leen di woowee les enfants talibés parfois ñu leen di woowee les enfants des rues yow ban gis-gis nga am ban analyse ci xale yi nga xamante ni en tout cas ñi ngi ci mbedd mi muy talibe muy enfant des rues du matin au soir di yalwaan. waaw foofu noonu eh, ñaari da daf ci am ñaari responsable def ci am ñaari ñoo xam ne ñoo nekk responsable mooy famille bi ak état du Sénégal. Mhm. parce que eh, eh, benn père de famille bu responsable bi jël sa doom di ko joxe di ko yalwaan loo. Mhm. ñaareel bi état du Sénégal warul seetaan benn yoon ñu jël xale te di ko yalwaan loo et c'est pas du tout normal c'est interdit par la loi état du Sénégal moo war a jël ay sanctions yoo xamante ne yu sévères. te dem te dem ci nag ba jeex parce que tam état day xaw a teg tànkam parce que day ragal sëriñ daara yi parce que en général ci bëri ay sëriñ daara ñu leen di jël jël ci sujet te loolu c'est interdit par la loi et yoon mais état du Sénégal mooy jël ay moo war a jël ay matuwaayam retiré xale yi ci mbedd mi te aussi euh, état bi ñu def ay jéego yu am solo bu tegwaatul tànkam euh, dina am dinañu am résultat parce que jamono yooyu jamono yooyu ci te na continuer loolu ba pare nag jël ay sanction sévère di ko di ko ay daan di ko teg ci ñoom te am na ci ñoo xam ne sax dëkkuñu Sénégal ay étranger ñëw fi indi fi ay xale di leen loo te loolu c'est pas du tout waruñu ko nangu aussi yow jàpp nga ne daal état bi moo war a jël ay responsabilités mais tamit parfois affaire bi dafa xa dafay xaw a sensible parce que boo laalee daara yi ñu ne voilà daara yi fa la ñuy jàngee alxuraan nga ne yalwaan gi ñu ne yalwaan gi peut-être si éducation coranique bi la bokk faaw ñu euh, toj sa xol ainsi de suite nga dem yalwaan en tout cas dafa nekk benn euh, sujet bu xaw a sensible yow ban jàng nga sam ba ba en moment sax doon nañ wax ay daara moderne euh, hmm. loolu loolu nag la ñu bàyyi parce que xale mun na jàng xam-xam te du dund violence tumuraanke te du sonn loolu amul fenn mais xale yi xale yi toujours ñu ci mbedd yi ban heure la ñuy jàng parce que xale yi huit heures ñu ci ñu ci mbedd yi neuf heures ñu ci mbedd yi dix heures ñu ci mbedd yi midi ñu ci mbedd yi kon ban heure la ñuy jàngal ban waxtu la ñuy jàng donc loolu amul dañuy fexe ba état bi la jël ay responsabilité am retiré xale yëpp seeti parce que moom moom moom mooy moom mooy moom mooy l'état état noonu la war a doxee xale yi dañu leen war a protéger dañu leen war a jàngal mais pas nag ñu leen di utiliser pour leneen am na ñu bëri ñoo xamante ne dépense bi xale lañ ko lañ ko lañ ko lépp te loolu c'est pas du normal voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, Serigne Gaye nekk njiitu association euh, les handicapés diplômés du Sénégal Serigne Gaye euh, ngeen fondé bile association tey jii boo ñu doon yaatalal yaatalal carrément jafe-jafe yëpp yi nga xamante ni handicapés diplômés yi ñu ngi koy jànkonteel fii ci Sénégal lan nga ñuy wax. mooy 15 pour cent maanaam maanaam téeméer boo jël recrutement chaque recrutement bu am au Sénégal téeméer bu ne fukki ak juróom jagleel way laago bi mais dañuy gis ne jot. maanaam dafa am quota. dafa am benn quota boo xamante ni muy 15 pour cent maanaam recrutement bu am fonction publique dañ cee war a am 15 pour cent. quinze pour cent. recrutement bu état war a def bu nekk rek ñun am nañ ci quinze pour cent maanaam téeméer bu ne ñun am nañ ci fukk ak juróom. waaw mais dañu gis ne quota boobu noonu noonu dañu ko xañ quota boobu la ñu am dañu ko ñu jot. maanaam quota boobu quota boobu respecté wuñ ko. respecté wuñ ko et puis suñu ay dossiers ñu ngi ko foofu di nelaw depuis des années mën naa ne fu sax ñeenti at ñeenti at. mais amul kenn koo xam ne jël nañ la quota bi dañ ko jël jagleel ko ñeneen ñoo xam ne nii moomuñu ko te loolu moo indi problème bi te loolu loolu loolu loolu la respecté nag loolu la loolu la président joxe ay instruction ba sonn te nañu ko jëfee d'accord yéen loolu ngeen bëgg état wu Sénégal respecté quota bi maanaam seen quinze pour cent ñu jox leen ko ba mu mën sëkk. léegi loolu moo waraloon seen dox ñaxtu yi ainsi de suite. voilà donc loolu moo waraloon ñu doon wàcc def doxu doxu ñaxtu pour bëgg askan dégg ñu président dégg ñu parce que dañu bëtt démb dañu dégg Aïssatou Cissé ministre conseiller bu taxaw ne ñun recevoir nañ ñu palais. ba réglé nañ suñu problème ñun ñëpp jël nañu ci privé bi. te loolu mu wax noonu lépp dara du ci dëgg ay contre vérité amul lenn lu ci. dëgg amul. Aïssatou euh, way laago waaw mais loolu mu wax noonu dara du ci dëgg recevoir nañu fale nag wax dëgg yàlla waxtaan nañ ak ñoom aussi. Hmm. la demande nañ dara du ci dëgg dara amu ci aussi. li muy wax recruter wuñ si kenn te yéen da ngeen a bëgg a dugg par force si fonction publique loolu ngeen exiger. xam nga par force moom yaakaar naa mënul nekk parce que état kenn mënul lañ loxoom soo bëggee woon loxo état boo muy dul sa loxo mooy damm mais dañoo bëgg ñu respecté suñu 15 pour cent yi nga xam ne si ñoo ko ñu jox ñu ko te loolu la ñuy réclamé. léegi ngeen ayca mhm. allez-y continuez. li li ñuy réclamé jafe yi ñu demande tout simplement le recrutement. dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État correspondante à leur profil professionnel. léegi lan ngeen fas yéene def amal ngeen ay dox ñaxtu sitting euh, lan ngeen fas yéene def ngir ñu mën a euh, jox leen seen i droit muy seen 15 pour cent ñu recruter leen ci fonction publique. waaw nos principes restent les mêmes et combat bi day continuer parce que euh, vendredi bi passé. Mm-hmm. dañoo amoon benn doxu ñaxtu boo xam ne dañoo toog ba xaaju bi ñu woo ñu ne daf ñu koo lànkal. waaw. bu ñu demee ci ci ci lieu bi ñu ko doon defee bëgg rencontré journaliste yi ak ak ak ak ak membres yi police dafa ñëw dal suñu kaw violenté ñu brutalisé ñu ba pare yóbbu ñu police mm-hmm. six heures du matin la ñu téye ba vingt heures lekk ñu naaw ñu xam ñu suñu ay droit te loolu loolu loolu loolu dafa nekk lu ñaaw loo xamante ne eh, eh, Sénégal war na ko dépassé te bu fekkee dañ ko def pour xoqatal ñu eh, nañu xam ne loolu du jàll ak ñun parce que combat bi dañ koy continuer mm-hmm. te fas yéene nañoo procureur benn plainte Euh, euh, parce que li ñu def c'est pas du normal. Mhm. Sénégal yoo xam def nañ li ñu war a def pour mériter un emploi une vie décente et digne au même tout le monde. donc yéen fas yéene ngeen dem ba jeex est-ce que yéen fas yéene ngeen def euh, grève de la faim wala dem buntu pale comme ça président mën leen a dégg xam ni yéen a ngi si dëkk bi am ngeen lu leen naqari. waaw xam nga grève de la faim dama dama dañu jàpp ne loolu mooy mooy mooy mujj daal. Mhm. et jàpp nañ ne bëgg ñoo egg foofu ak ñoom parce que e nañu ne te président monsieur Macky Sall dégg nañu te dina ci ay saafara parce que nag vraiment euh, depuis deux mille vingt ba léegi ñu ngi joxe ay instructions te jàpp naa ne cette fois ci dégg nañu te dina jël dossier bi en main parce que moom mooy le père de la nation et président Macky Sall mu jàppale waylaago bi lan la koy wàññi soxna soxna Ndeye Coumba wàññiwu ko dara te waylaago bi amul amul kenn ku dul président bu ko président jàppalewul kan la koy jàppale est-ce que yéen tamit seen xel duy dem si comme ça ñuy wax affaire émigration clandestine comme que nekk ngeen ci réew mi jàng ngeen yor ngeen seen lijaasa euh, joxuñ leen seen chance xeex ngeen ba sonn est-ce que euh, euh, tentewu leen émigration clandestine waaw xam nga soxna Ndeye Comba ñun ay intellectuel mhm. koy def dañoo dañoo dañ loolu mooy fuite de responsabilité xam nga fuite de responsabilité bi paasewul yow ngay dem ci risque yoo xamante ni à quatre vingt dix neuf pour cent des ingrédients sa dund hmm. te loolu loolu ndaw bu responsable du ko def ndaw bu responsable day toog réewam jàkkaarloo ak président wax ko li li mu bëgg jàpp naa ne ñi dem ci ñi dafay voie clandestine dañ def fuite de responsabilité loolu du jàmbaar bu ñu ne boo doonee jàmbaar ñu ne da ngay toog sa réew jàkkaarloo ak sa président ne ko monsieur le président lii laa soxla lii laa bëgg deux mille personnes suñu jàkkaarloo ak président ne ko lii lañ bëgg président def li mu bëgg donc dem ci ay gaal moom loolu du ñun ko te duñ ko sax te duñu digal nit ñu koy def. maanaam yéen loolu waaw seen xel dajul foofu mais ban jàngat nga ci am jeunes yi nga xam ni dañu désespéré euh, ne ñoom comme que jàng nañ wala jànguñ en tout cas réew mi amul dara jël gaal yi dem utali Europe yow loolu ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am ñaar la benn bi mooy mm-hmm. bépp ndaw bépp ndaw bu koy def nekkoo ndaw bu bëgg sa réew nekkoo ndaw bu yërëm sa ay waajur parce que bu fekkee da nga que yow mi ci dem wër na eh, de responsabilité la man du ma leen ko dem tukki ci voie dem voie sa waajur ngay souffrir nga teg leen beneen naqar aussi xam nga am na loo xam ne daf fuite de responsabilité la man loolu du du fit du du du du boo fekkee da nga fit da nga jàmbaar da ngay toog sa réew nga liggéey boo tukki nga jaar ko ci yoon nga dem tukki mais ah bi bi bi phénomène boobu bare ak tamit violence yi fi amoon fitna yi fi amoon euh, gis nga njiitu réew Sénégal waxoon na day jël ay disposition pour utal ndaw yi xëy loolu ban jàngat nga ci euh, am parce que ndaw yu bëri nee nañ euh, malgré état wu Sénégal disposition yi mu jëloon pour jàppale ndaw yi ñu am xëy mën a toog ci réew mi defu ko yow loolu da nga dëggal wala. xam nga euh, euh, Soxna Ndeye Coumba dafa am loo xam ne nii mënul nekk président de la République monsieur Macky Sall. Mhm. te bu bëggoon a wutal ñëpp am xëy loolu mënul nekk. te ndaw ñi président Macky Sall ñu ngi ci ndaw ñu ñu ndaw ñi mais mënaguñoo na ndaw ñoo xam ne nii est ce que xam nga ne Ndeye Coumba am na ñoo xam ne dañu leen a financé ñu demee ko ci gaar yi est xam nga loolu. dañ leen a financé. dañ leen a passé ñu jël financement wu état bi ba pare demee ko ci gaal yi. maanaam état da leen a joxe koppar ba noppi. pour ñu dem liggéey ñu jëlee ko gaal génn. su mhm. ne ko daal am ci ay ndaw yoo xam ne ni jot nañ ay financement ba pare lekk ko fay ñu ba pare liggéey ba pare toog jugaat bi yuuxu mhm. xam nga xam nga dafa am dafa dafa am loo xam ne dafa nii état bi Sénégal mënul def lépp mënul jël ñëpp ñëpp wuta leen am xëy mënul nekk mhm. am na nag ñu ngi def ay jéego naam parce que am na am na dèjà recrutement yoo xam ne dafa ñu ngi dem am na ñu jël ñu bëree bëree bëree bëri mais am na ñoo xam ne def de financement demandé ay ay prêt lekk xaalis bi liggéey bi. maanaam daal jàpp nga eh, eh, eh, état ni mu bëgg a jàppale ndaw yi pour ñu am xëy baaxul mais kon yow léegi lan ngay lan ngay suggérer état wu Sénégal lan la war a def exactement. non état moom état euh, wàllu xëyu ndaw ñi état li mu ci def liggéey bu am solo parce que ñu wutal ay nit te li ñu financé ay nit. mais nit ñi nga xam am na loo xam ne état mënu ci état état mënu la financé pare dina topp nag di la xool loo ci def ak loo ci dul def. Mhm. kon lan la mhm. war a liggéey nga xam ne xaalis boobu noonu da ko war a fay ñu joxaat ko sa morom mais imagine toi nga dem demande prêt ñu jox la ko nga jël xaalis bi lekk liggéeyuloo donc donc loolu rafetul état mënul mënul pour financer topp la la di di di xool foo ko dugal foo ko dul dugal. et aussi am na ñoo fii daal handicapé laa xam ne nii eh, côté boobu moom eh, am nañ am nañ ci ay jafe-jafe am nañ ci ay problème hmm. mooy wàllum xëy mais moom ñeneen ñi eh, ah, mais mais bu dul handicapé yi tamit ñeneen ñu ngi kaas nee nañ gisuñ dara état wu Sénégal euh, projet yi mu waxoon gisuñ dara sentiruñ ko recrutement yi c'est c'est politisé voilà soo bokkul si mouvance bi doo mën a bénéficier aussi yenn euh, projet yi ainsi de suite waaw xam nga euh, soxna Ndeye Comba dafa am ñoo xamante ne ay opposant lañ lu président def dañ naan baaxul. Mhm. te man jàpp naa ne pour ñoo doxee noonu quoi. yow ah yow jàpp nga ne président li muy defee ci côté euh, xëyum ndaw yi baax naa mais yéen gisoo leen seen bopp. waaw li mu li bopp parce que yi daf ci am liggéey yu bëri yoo xam ne handicapé mënu ko def mais valide bi na ko def handicapé bi mënul nekk policier mënul nekk gendarme mënul nekk militaire mënul nekk douane. Mhm. recrutement boobu handicapé recrutement boobu président def na ci recrutement def na ci def na ci lu am solo. boo demee ci xëyu ndaw ñi Mbappé ak ñi ñi ñi carnet carnet ak yeneen ak yeneen bu fekk président def na ci ay jéego yu am solo mais nag mënaguñoo jëlee moom ñëpp ñëpp ñëpp ñu liggéey mënul nekk loolu mënul nekk mais état mais état du Sénégal ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo. mais sept cent cinquante mille emploi bi caaxaan sept cent cinquante mille emploi bi caaxaan donc état du Sénégal ñu ciy def ay jéego yu yu bari sax mais en tout cas daal kenn rek la leen amee problème mooy handicapé yi ñoo ci gis seen bopp. d'accord yéen yéen a ci gisul seen bopp. te fas yéene ngeen dem ba jeex pour mën a gis seen bopp ci euh, projet yu njiitu réew Sénégal. waaw kon kon jàpp nga ANPEJ affaire kuréel yooyu ñu fi teg yëpp c'est bon baax na DER euh, pour mu financer jeunes yi baax na te peut-être yenn jeunes yi xaalis bi ñu leen di jox ñoom ñoo koy détourné. looloo bénéficié wu nañ bénéficié wu nañ ci ci ci ci ci air bi. Mhm. bénéficié wu nañ ci air bi gis nga gis nga gis nga euh, sama lay kumba. waaw naan li ñu def li ñu mën. wallaay at yii ñu def li ñu mën. du question nag amaguma li ma bëgg rek président Macky Sall wax dama naan non baaxul lu mu def ba ne baaxul am na warul doxee noonu. xam nga lu mu def lu baax kon yow mbaa danga bokk si ñi nga xam ni président bu bu laajoon troisième mandat ñu jox ko ko. waaw xam nga man juriste la euh, euh, président. juriste ci élection 2024. loolu may na ko mu bokk ci élection yi 2024. yow yow juriste nga. yow nga ne waaw waaw si wàllu yoon. Mhm, mhm. juridiquement président monsieur Macky Sall il a droit de participer aux élections de amul lenn lu ko ko mën a xañ comme juriste nga peut-être ñu laaj la si un peu question euh, d'actualité di euh, gis nga scandale mi Sénégal bi am yow ba lan moo si sa xalaat coowal viol proxénétisme xam nga violence faite aux femmes en tant que juriste am nga si gis-gis tëdd nelaw maanaam yow scandale mi Sénégal bi yow ban jàngat nga ci gis waaw xam nga loolu euh, euh, scandale bi mënu ñu cee wax lu bari parce que maîtriser wuñ dossier bi tey da ngay dégg lii suba nga dégg lii ginnaaw suba nga dégg lee mhm. euh, li li ma li may sàkk ci nit ñi rek ñu bàyyi yoon mu def mu def liggéeyam bu mu sanctionné ñu war a sanctionné ñu sanctionné leen man loolu loolu laa ci laa ci gis mais ñu bëri ci mhm. dañuy waxee tee wax lee tee wax lee dan doo xam sax yow kan moo nekk ci dëgg te loolu loolu loolu loolu du yoon gis nga dans un pays de droit. Mm. du problème am nañu bàyyi yoon mu régler problème bi ku ci nekk ñu xam fu dëgg féete loolu mooy li nga xamante ni moo war a am. maanaam nañu bàyyi justice def liggéeyam. gëstu xam qu'est-ce qui s'est passé exactement. exactement au lieu que justice populaire bi am ak réseaux sociaux yi tout. waaw loolu mooy c'est normal mais gis nga tey gis eh, eh, bi mu amee eh, nii. mais non violé wuñ ko dañ koo violé doo xam yow fan la dëgg bi fan la dëgg bi féete mais buñ bàyyee yoon rek ñu def liggéeyam lépp day leer. d'accord yow loolu ngay suggéré voilà. mais loolu moom mooy mooy moo mën a bi ñu sonal ci ñoom parce que tey man par exemple tey su fekkee ne eh, eh, dama xam ndaw si dama koy dama koy défendre. yow kilifa bu fekkee xam da koy défendre ku wax lii cee wax lee cee wax lee après doo xam doo mën a xam sax dëgg bi fan la féete. d'accord loolu la. foog ñu bàyyi daal justice def liggéeyam parce que justice populaire bi am léegi waaw ci interne du du am problème du yoon def liggéeyam d'accord léegi léegi en tant que juriste est-ce que d'accord nga si li ñuy wax euh, loi projet de loi avortement médicalisé bu doon yow da nga koy voté waaw wala déet euh, avortement médicalisé pour les cas de viol d'inceste ainsi de suite waaw xam nga euh, abor avortement médicalisé am na fu ko yoon nangoo mais am na foo xam ne yoon na ko dafa am loo xam ne def aussi islam nanguñu ko te ñun ay musulman lañu parce que vous comprenez bien bu ne ndaw si dafa ëmb bu médecin yi xool ne fii mënul jël ëmb bu loree doom bu bu bu bu jëlee a loru mën fekkee nag xale bi dem foo ba doyal ñëw bëgg dindi ëmb donc loolu du ma ci d' te kenn ci d' donc yow di nga bokk ci ñuy soutenir le les cas les victimes de viol d'inceste et ainsi de suite loolu lañ mën a jàpp xam nga mën nañ la violé mën nañ nga jëlee ci ëmb te ëmb bi yow di nga ko mën a garder ba am doom te doo doo doo doo loru donc kooku koo kooku jërul ñu yàq amu ci mais bu fekkee nag nit la koo xamante ni dafa ëmb te mu wér médecin yi mu wér leen ne ci bakkanam mën na loru ëmb boobu mën nañ ko yàq sans problème donc loolu loolu jërul sax ñu koy ñu koy ñu koy boobaa donc dañ koy def sans problème l'islam bu mu si na loolu mais nag mais nag lan laa d'accordul ci nga xamante ni ëmb na bon dañ maa violé dama koy yàq donc loolu dafa yomb loolu loolu bu euh, naa wax ne kon euh, adduna bi day daal di day daal di day daal di yàqu parce que gis nañ ci ñoo xamante ni bari nañ ñi ñi fo ba ëmb rey seen doom sànni kooku donc boo ko joxee possibilité nag mën ngaa yàq ëmb bi da koy voilà Serigne euh, Gueye euh, waxtu bi dab nañu ñu bàyyi la nga tàggatook auditeurs yi tamit lancer sa dernier message par rapport ak seeni euh, jafe-jafe ak kuréel gi leen nga jiite di association des diplômés des handicapés diplômés du Sénégal. waaw ndax ñu lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu bi. di wax aussi sénégalais ñu ànd ak dal te moytu violence bu su leen ci woo bu leen ko ci fekk ci parce que bu fekk bu bu bu ñàkk di am euh, c'est le Sénégal qui perd nañu fexe ba euh, li ñuy def ñu defe ko ànd ci ak suñu xel di wax aussi le président de la République monsieur Macky mu euh, signé décret d'application yi nga xamante ne nii Euh, moo nekk ci loi d'orientation sociale bi à la lettre euh, ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom mooy njiitu association des handicapés diplômés du Sénégal ñu doon waxtaanee euh, lépp lu soxal seen i jafe-jafe ak yenn ponk yu soxal actualité bi kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures kon ba samedi prochain 10 jàpp 11 ci beneen beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi tamit mën ngeen koo dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf